dalaat leen jàmm fidèle internetu bpactu.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen euh, jaajëfal te fa seeni ñëwaat ak yenn ci seen xibaaru actu net comme ni ñuy faral di ci ànd ak yéen su nekk tey nag dañ ko fa seeni ubbee ca xëtam bu njëkk ba ak scandale bi xew ci biir BOA Bank of Africa benn agent bu bàyyeekoo ci banque bu CBAO bu mu dikkee foofu nag am fa poste boo xamante ni xaw nañ ko fa ràññee loolu mu daal di euh, profité rek. ci postam ba daal di amal ay transaction yoo xamante ni tegu ko fenn lu toll ci 63 transactions frauduleuses yoo xamante ni woon da doon yóbbu ci société bi ñuy wooyee bu Auchan alors que mi ngi ko doon viré ci benn jigéen bu mu doon labat dafa yëkkati lu toll ci 3 millions de francs CFA daal di ko koy jébbal may ko ko ginnaaw nag ba ko yoon tegee loxo ci cappaandawu enquête bi mi ngi yëgle moo ko def waaye ba koy def def tayu ko ndax euh, dañ koo liggéey moom leen na ko ni àndul woon ak sagoom dañ ko envoûté bu mu doon jël xaalis boobee euh, di ko ne ba bëgg du duutaale baaraamu tuuma ki nga xamante ni euh, moom moo di copinam boobee lu ci mënti ruusandiwaat rek dinañ ci ñëwaat ak yéen incha allah rabbi ñu daal di wél suñuy xibaar rek ci scandale bi xewoon ci coupe d'Afrique des nations bi ñaari borom ñaari tur yi ñu na ci benn juma ñu doon sekk naka sudul noon bés boobee naka nekkoon na bés boo xamante ni metti na tàngoon ndax ñoo ngi doon euh, jubilé ci ndam euh, bi euh, Sénégal amoon ca demi-finale ba waaye ñoom nag dañ cee profité woon rek ngir daal di tromper vigilance su sénégalais yi heureusement benn maire bu toogoon ci terrasse moom moo ko daal di gis film vidéo bi laa laataa muy woo nit ñi ñu teew sur les lieux takk deri nag téye nañ ko. ba ñenn ci naataango yi demoon sur place daal di tàllal micro imaamu uh, juma jooje moom nag mu yëgle ni waa jooje lu wokkul mu wokku ko comme ni ko way bu jigéen waxee nag juróom bu jigéen dafa ni àndut ak sagoom day sax day faral di dem hôpitalu fan uh, di suivre ay traitement teg ci tamit nag na yeneen feebar yu ko sonal ndax da daan faral di crise ak yeneen ak yeneen imaam ba daal di koy wedd ba mu set di yëgle ni waa joojee lu wokkul dërëm wokku ko ndax jàng na alxuraan ba wàcc ko d'ailleurs sax am na ay taalibe yu daal ñëw ci moom leen di jàngal lenn rek moo ko dal muy crise te crise euh, ku ne gis na Sénégal ñu muy faral di dal bu ñu crise ba jóg pare nañ ci dañuy continuer di dox seeni soxla di toog ci ñi di wax di def euh, lu nekk d'ailleurs sax des fois daan na téye micro jumaa ji doon def appel à la prière donc buñ ko wekk foofee rekk ci acte contre nature bi mu def ba ginnaaw buñ ko jugé ba noppi nag ñoo ngi yëgal ni lu toll ci six mois ferme lañ ko daal di tëj moom maître coranique bi defoon xeetu ñaawteef boobee way juróom bu jigéen tiis euh, di jooy ci bërëbam ba mu nekk ca buntu juma ba mu teg taabalam euh, di jaay euh, yenn marchandise mi ndaw ngir doon ko dundal waaye tamit ngir doon ko faj ci jafe-jafe wu santé yi mu am. coow wala Ukraine ak Russie nekk na coow ba nga xamante ne yaatu na lool ñenn ñi bëgg nañ cee dugg waaye xamuñu nag ak nan lañ koy jaarale rek ba kii nii di président na du mettre ses menaces à exécution ndax waxoon na bis bu ci kenn duggee rek dina ko jëflante ak moom suñu itam nag président Macky Sall ba mu boolee pattam googee da cee daal di raxaale rek li ñu woowee organiser ndax trouvé na les bons mots euh, ngir convaincre euh, kii nii di Poutine mu daal di continuer cesser le feu fële na la ci diwaanu Ukraine ba jàmm ñu waat bu ko defee rek ñu daal di toog ko wax naa ne ko seen biir xool naka lañuy def ba trouver terrain d'entente ginnaaw ba suñu njutum réew waxtaanee ak Poutine waxtaan bu yàgg loolu au téléphone Poutine nag daal di nay def ab publication di saluer acte bi nga xamante ni moom la suñu njutum réew de président Macky Sall xamante ni moom lay amal ndax gis na ni boobaak léegi da cee demee ah, li nga xamante ni moom la ah, woowee diplomatie sénégalais yi tamit nag rafetlu nañu ah, taxawaayu Macky Sall tey ñaan yàlla rek yooyee négociation mu daal di ci li ñuy woowee cessez-le-feu jàmm mu daal di doxaat diggante Ukraine ak Russie ba tey bu ñu waxtaanee ci guerre bi nga xamante ni moo xew diggante Ukraine ak Russie jamono yële ñu génn nee nañu ambassade bu Ukraine ci Sénégal dafa amaloon benn publication da yëgle ni bépp sénégalais boo xamante ca diwaanu Ukraine jàppale leen ci xeex bi ñu war a sekk ak waa Russie rek pare nañu ngir daal di leen di yóbbu foofee su njiitum réew daal di génn ne ko fermement ndax nee na waa ambassade de Ukraine bu Sénégal amuñu droit benn yoon ñi dañuy recruter ay mercenaires yu leen di xeexal ci loo xamante ne seen xeexu bépp bopp la moom dafa fas yéene protéger Sénégal waaye tamit protéger wàlla Sénégalais yi te du seetaan lu mel noonee du fi am naka noonee nag ci la ambassade Ukraine bu Sénégal dafa defaat ab sorti euh, weddu ko ba mu set wecc nee nañu nag ni ñu comprendre post bi ak moom li mu publier woon euh, daanaka dara du ci benn waaye cet fois ci nag dafa publier waat officiellement ni am na ay ukrainien yoo xamante ne ñoo ngi ñëw ci réew réewu Afrique yi lu ci mel ni Ghana Côte d'Ivoire Sénégal ak yeneen ak yeneen yu nu mel nee na nag bépp famille yoo xamante ne pare nañu ngir accueillir ay ukrainien seeni biir jàppale leen ba keroog ko guerre bi di dakk seen réew rek nañu benn buñ ci duggee dinañu joxe information comme euh, lu mel ne ñaata chambre la ñu am seen biir kër ak ban espace la am ngir accueillir leen soit benn nit soit nit yu bari soit famille ak lépp lu mu mën ci doon lekk ñoo ngi compter Euh, ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, africain yi ngir ñu daal di jàppale yooyee ukrainien ndax dañoo toll ci jafe-jafe yi nag ñenn ci ñoom jot nañoo def euh, réaction am na ñoo xamante ni nee nañu waaw loolu dara nekku si d'ailleurs bu bu moytuwul dinañu gis ñu dugg ci site boobee inscrire ngir accueillir ay ukrainien waaye ñeneen ñi nag moom dañ ci ànd ak ndax jàpp nañ ni li sénégalais dund ci seen frontière mënuñoo retourner waat di ñaan ndimbal alors am na ñenn ci sénégalais yu toog foofee bëgg ñu jàllale leen te bu suñu doon yàlla tey tey ji mënuñoo fexe ba jàll bu métti métti bi amoon ci diwaanu salle de vente nag ay millions ak i millions ñoom fa daal di ci ay matériel euh, meuble plus précisément rawatina ay fauteuil li nga xamante ni di lal armoire ak yeneen ak yeneen yu nu mel ndax gis nañ bërëb boobee bërëb bu yaatu woon teg ci tamit ay millions ak i millions la fa commerçant yow toogaale woon lakk gi daal ñëw rek ravager lépp euh, def ko dóom nag commerçant yi a def mettitlu seen alal joojee xëy xëy rek dem te amuñu lu ñu commencé waatee seen fonds de commerce suñ njiitum réew président Macky neen nañ ubbi enquête ba ca na mu gën a gaawee ngir xool ana moo nekk ci ginnaaw incendie boobee ravagé lépp waaye yemul foofu joxe na ndigal ngir ñu débloqué lu toll ci 75 millions de francs CFA dimbalee ko commerçant yi kii nii di maire de Dakar ñu koy wax Barthélémy Dias daal daanaka daal la 25 la ci ñàkkee foofee seeni matériel waaye nag ba euh, commerçant yi di joow suñ njiitum réew euh, ak euh, kii nii di maire de Dakar Eh, di xool naka lay def ba daal di saafara seen jafe-jafe lébu yi nag ñoom ma eh, jug nañu di réclamer li nga xamante ni moom moo di terrain yi nekk foofe ndax nee nañu ci ay jamono seen terrain la ñu seen seeni terrain la woon dañ koo jël de force daal di koy louer ñi nga xamante ni ñoom ñoo di commerçant yi te buñ fa dëkkee ba suñu joonu yàlla tey jii ñoo ngi xool naka lañuy ñuy def nan ak naka la ñuy def rek eh, ba daal di nangu seen i bërëb tey nag lakk gi am na ba ku ci nekk sa alal dem magasin ya daal di def doom donc leen di delloo seeni ndax ñoom ñoo ko moom ca bu yàgg un déjà ginnaaw ba ñu fàttaliku coowal Adji Sarr ak Sonko nekk miir bi nga xamante ni nag euh, li waral kenn mënu koo fàtte ba suñu joonu yàlla tey ji mën nañ cee cité meurtre yu bari yi nga xamante ni moom moo ci amoon euh, Ousmane Sonko nag ngir fàttaliku loolee ak nakarlu ko ba suñu joon yàlla tey jii ñoo ngi continuer di téye li nga xamante ni moom moo di passeport am euh, tere ko génn ci réewum Sénégal ba keroog ñuy amal procès bi xam fi dëgg gi féete ñenn ci collectif des familles sax ñëwoon nañu ci siège bu frappe ngir exiger ñu daal di delloo Ousmane Sonko li nii di passeport am ci na mu gën a gaawee ndax jamono ji nekk na maire bu Ziguinchor dafa soxla di voyager di dem ko dikk di trouver ay partenaire waaye tamit xool moyen bi gën a euh, juste ngir daal di koy euh, développer rek euh, fi nga xamante ni moom moo di Ziguinchor ba tax na daal menacé nañu ni buñ ko ko joxul à tout moment mën nañoo amalaat beneen mois de mars bu gën a féroce kaw bi fi jóge woon d'ailleurs sax Ousmane Sonko yëkkatu mooy mi ngi koy waat ci kanamu senegal yëpp te naan billaahi wallaahi wa moom bu fekkante ne ñu ko doon la ci coowal aji saar bi dëgg la du nangu sax benn sénégalais di ci am métit rawatina quatorze personnes di ci ñàkkee seen bakkan ndax moom bu toogee dina xam ni moom moo tax ñoo ñee daal di ñàkk seen bakkan euh, pour la première fois nag ñu koy dégg muy soog a ci coowal aji saar boobee ngir firndeel ni moom takku ci nii de près nii de loin d'ailleurs sax ki mu continuer di du baaraamu tuuma moom moo di président Macky Sall ak ñoñom ndax jàpp na ni ñoom ñoo jugoon ngir daal di koy faagaagal politiquement di ko jaarale ci jigéen Imam Kanté nag ratéwul benn yoon kii nii di euh, Pape Amadou Sarr nekkoon euh, DG bu deer ginnaaw ba mu yëkkatee ay kàddoom euh, jàppoon ni day défendre jigéen ci kanamu l'islam doon contesté jugement bi nga xamante ni moom la l'islam am ci jigéen ak yenn bu yi ni duñu yëkkati seen loxo di ko jox jigéen kii nii di Imam Kanté nag la mu conclure ci mbir ma mooy kii nii di Pape Amadou Sarr réew ñàkk kersa ak répp moom moo ko jàppoon bu mu yëkkati ay kàddu yu ni mel ñëpp di ko dégg day d'ailleurs bu jàppee ni dafa doon jéema a suturaal jigéen la kenn jàpp ni tegu ko fenn dafa mujjee ñàkkee kersa jigéen dafa mujjee toroxal jigéen ndax bu demee ba taxaw naan ah, jigéen ku ko joxul loxo ci biti rek boo duggee ci biir di nga ko seere ana fan ak nan la ñuy seeree jigéen ci biir mi ngi jéem a révéler ay secret yoo xamante ni privé la te suñu borom da ko daal di sàng sutura ba tax na rafetlu wu ko benn yoon te jàpp kii daal repp ak bëggoon musiba am ci réew mi doo nga mu doon wax waaye nag Euh, suñu borom def na li gën moo yëkkati nañ ko ca postam euh, bi mu doon occupé ca diwaanu der sinoo doon na gën a metti lool tax na mbokk yi tey li lañ leen euh, indiloon ci seen xibaaru ak Actunet jaajëfal leen fu waay mënti nekk jox leen dig daje ba beneen yoon incha allah